takko solu fu baby bul di jaale du bari yere mooy sañse asalaamaaleykum sama mbokk internet yi maa ngi leen di nuyu yéen ñi ma sapoo di ma faale tout le temps di yokk sama doole di yokk sama sama courage ci li def franchement namoon ngeen ma namoon naa leen parce que yéen ma doon laaj maa ngi nii yegsi ak sama ay bagage yu xam nga génn fi bees dama len bëggon may tuuti standby rek xam nga tuuti rek ñu daal di def suñu weeri koor ba mu yegg mais xam naa ne rof yaqul jël parce que gaay yi ñi ngi xaar ñi ngi laaj tout temps ñi ngi may envoyer message xam nga te comme yéen ma fi bayyi mom li ngeen ma sant rek lool laay def kon li ngeen bëgg rek lool laa leen di indi voilà ci xet yu neex ye xet yu baax baax yaqul yàqul koor yàqul koor ma sha allah nay neex di baax rek waaw kër gi di gëna neex dara du ci yaq ndax euh, sha allah dañu naan l'islam mo gëna bëgg xet gu neex

am na nu mu la gisee am na nu mu la nu mu la nu la xaar fu la gis daal macha allah mais am na tey ñoo xam ne macha allah boo demee ne dama yenn sax boo yeggee rek toog da ngay am envie daal di tàggoo ñibbi te jeeg ne dafa war a bàyyi xel trop ci loolu ndax ñun dañoo am wàll bu moom moomal suñu bopp mais dafa am wàll boo xam ne suñuy mbokk ñoo ko moomal seen bopp nag macha allah côté boobu mooy bëgg ñu ciy xalaat di ci dem bu baax voilà loolu c'était une petite parenthèse ndax maa ngi yéen xamee xamee nañu bu baax ma commencé ci sama sama ciep bu neex bobu ma len defal tay ak ben cocktail parfum bu neex waaw fii ngi xëy neex macha allah ñu daal dégg jamm dal jamm ci niñ koy waxe wa li ngeen fi gis ni yeb nak tay en fait li duuf ci nak bi yëpp du xëy ci ci li comme ni ma len koy waxe rek parce que dañu ciopati tout ci boutique bi rek indi fi ma len ko digon yeen euh, wa Sénégal TV digon len ko yeen sama mbokk internet yi digon len ko yeen sama client yi nga xamne fu ngeen tollu yeen a ngi lay suivre di xol fuma tollu di xol lu may def xam nga luma ma génnee bees macha allah te lépp lumay créé rek mu tollu ak li ngeen di sant yalla lu bari rek comme ni ma len ko waxee macha allah parce que euh, du ñun du ñun ndax wax dëgg yalla xam naa ne lu bëgg-bëgg té yalla and ci du yalla kon nak lépp luñuy def dañuy japp né yalla mo ñu ci xéer kon bu tollu ak li ngeen di xaar ci ñun ñu di len ko santé di ko sante yàlla macha allah di ñew ci xet yu neex yi présenté na len ceeb yi nga xamné xamna né gis ngeen ko mais xëj ma santeur yi dina wute ndax man dama am ay cocktail de parfum yu spécial yoo xam ne dafa dafa propre ci maison Kër Dieng gi ku ne xam ne ne rek macha allah cocktail moom bàyyi ñu. voilà ñu ngi ciy def yu baax macha allah di ko boole ak suñu diffuseur yi di di di saxaar nii ngeen di gis te yemu ci parce que dañu nekk ci période tàngaay ñu war a ñu war a denc tuuti ànd cuuraay ak xale yi génn ci yeneen feem waaw ndax jigéen dafa war a bëri feem ba mu jeex ak Kër gi de saison bu nekk dañ koy préparé macha allah voilà ñëw ci diffuseur yu neex yooyu ak cocktail de parfum yi mu andal nga xam day humidifié walé sax comme ni leen koy faral di waxé pièce boko ko day melni daf koy climatiser en quelque sorte voilà mën na bañ yegg ci degré climatisation ba pour baña exagérer machallah mais dina ko sédal ba nga xam yow mi dëkk ci pièce bi bu génné ba duggaat di nga xam amna lu fi soppeeku dina am fraîcheur bu baax bu mu dafa bàyyil ak xat xet bu neex te comme loolu la ñuy wër rek machallah dina sawarlo nit ñi ba paré di téye gaay ci kër yi voilà ci biir néeg yi macha voilà di ñëw nak ci nga xamné ne commencé nañu rangement bi parce que comme da ngeen a ñëw fekk maa ngi liggéey ngeen ne il faut ñu tourner yu bëss il faut ngeen gis ko xam nga ñu daal di ci ciopati tout rek ñoo tegal ko ci table ji parce que li nekk fofu moom dañ koy garder ci rukku bi le temps ñuy mëna continuer suñu réalisation ba nu leen di mëna a invité macha allah pour suñu ouverture du boutique yi kër jeeg gi deuxième boutique yi kër jeeg gi à Dakar macha allah di ko sant yàlla aussi bu baax a baax voilà Euh, di ñëw ak yéen ci yenn cuuraay yi waaw parce que gis ngeen bii nii nàkk la macha allah ñu def ko ci bouteille yu rafet dañu xamoon rek ci pesé parce que pesé rek lañ daan def léegi nag euh, internautes yi suñu clientes yi macha allah dañu ci dañu ci interroger lu bari euh, ndax amul leen ay pot yu nice ma ne ah kay dinañ ñëw ak yéen ci pot yu nice parce que yéen a ko laaj il faut ñu defal leen ko lii nàkk bu bu bu neex a neex la macha allah bu ñuy importé jidda di ko pesé ay kilo ak ay 500 grammes ba pare tibb ci defal leen ci pot yu yem. mu présentable neex euh, yobou fu nek ba paré euh, pour gars yi soxla panier yeeg affaire yoyu ak même ñi nek à l'étranger nga xamné ne léeg-léeg pour bagage yi dem day nek problème xam nga li mom pratiquement civilisation c'est de la classe machallah ñu am ko ci ci ci nàkk bi am ko ci ci ci bi en fait ci sarxatan autant pour moi voilà bi aussi sarxatan la te ku ne xam sarxatan sarxataan waaw yéen ñi fi nek mën ngeen ma seede ci xép voilà lu nek la machallah allah bi ñu bàyyi bëgg nañ ko. ndax doo ci am lu doy ñu koy sante yàlla aussi voilà fi ngeen ñuy xaar rek foofu la ñuy bëgg di génn tout le temps ñu ngi yokk di gën a def loo xam ne en euh, fait bu ngeen ko gisee rek dina leen kontaanloo parce que nee leen yéen ñu fi bàyyi voilà lii yëpp ay xeeti la te dinaa leen wax lu leen xaw a kër jéeg gi dafa am cinquante euh, variété de cuuraay yu mu teg ci kaw table ji yooyu la ñuy defee lancement boutique bi xam naa ñi ma xam dëgg loolu leen xaw a jaaxal xëj na nag yokk na voilà yokk na te ku yokk cere di nga dolli ñeex

voilà ñu génn ci loolu gis ngeen bii c'est en forme de mallette c'est en plastique aussi waaw puy dafay rafet dina présentable ba pare dina neex yóbbu fu te doo ko def ci sa kaw coiffeuse ba benn jeeg fekk la foofu di la di la di la yab parce que ku ne xam na ne emballage bu nice dafa am importance ci yenn produit nice na vraiment c'est très très abordable aussi parce que xamante naa ak yéen te comme dañuy faral di traité aussi

moy ngi dal xam nga mag yéen mom comme dañ bëgg dem fu sori mom moy lool voilà gis nga bi moy canard bi sous forme de canard am nañ ci couleur yu bari aussi am na rouge am na vert am na bleu bi voilà éppal yi woon naa leen ko je pense peut-être mo ci koo des gis aussi tu ra neex na macha allah cuuraay yëpp mënuñu ko indi fi parce que vraiment dafa bari dafa bari dafa bari trop il faut ma je leen ko parce que demain may door j'avais que 10 variétés voilà 10 variétés cuuraay laa déparé woon ak jéggi Et tey bu ñu bay dugg ci 50 variétés parce que je suis def ñeme nañ ko et loolu grâce à nos clients franchement nous nekk à Dakar ñu que euh, dans les régions voilà partout dans l'Afrique dans la sous-région et partout dans le monde parce que tu wax grâce à grâce ak suñu partenariat Sénégal TV gaay ñi ñuy sentu fu nek ñi ñi gis fu voilà te ku da ngay euh, à travers télé Sénégal TV franchement nous ngi def résultats Nous ñi xam di bëgg li découvrir parce que xam nga choix télévision dafa xaw c'est pas sûr parce que nous dañuy à travers les images mais dañ ciy sant yàlla aussi parce que amoo ci kenn koo xam ne livré nga ko mu am déception te loolu am importance la à chaque fois dama koy waxaat parce que nit xamu la dugalal la xaalisam nga retiré ko léeg-léeg mu nekk xaalis bu bari macha allah nga toppatoo ko si ay bagage ba mu yegg dox ci lu koy yóbbu soit post wala ci suñu mbokki GP yi mu dem ba yegg fi mu jëm wala sax au Sénégal ci livreur yeeg euh, allo dakaar taxi yeeg yu kenn xamul. yoyep yëpp c'est des moyens de transport yo xam ñun ñu ngi defante ak ñoom te vraiment gaay dañuy dugg ci dugalal ñu xaalis ñu jël seen bagage tégal leen fofu te duñ ñu gis kon nak lolu confiance mënul weesu lolu gis ngeen po yi mom lañ wax nen bi c'est très décoratif nga teg rek ci sa ñaari bop la te cuuraay lay am en même temps cuuraay bu neex a neex macha allah moo ci nekk voilà nga diko tal ni nii rek si suuf boo taal rek tek mu décorer la la nuit macha allah yéen a ma gën xam bagage yi bari na trop comme dañ nekk ci corps dañuy xawa modéré tuuti yéen ma gën a xam waaye xam ngeen bagage ci kanam dina gën a metti trop parce que xam naa ne yéen xam ngeen mata fi ngeen may xaar foofu laay génn incha allah voilà mu nekk yëpp ay xeeti xeeti baax baax voilà gis nga tasse bi peut-être trop de lumière xëy na lumière bi muy dégagé doo ko gis noonu mais boo xoolee tige bi nii mu ngi def ay couleur ci biir voilà mu ngi def ay couleur ci biir moom dañ koy taal moom tamit waaye moom ci dîner rek macha allah nga teg rek jàkkaarloog sa sa sa alaaji wala taajal ko reer bu baax tegal ko ko bon day yokk point voilà lii ku nekk dina xam ne boo ko respecté wu rek doo ko ko defal vraiment gis nga nga def sa deux tasses rek noonu moom contact la am contrairement ak bii nga xam ne nag dafa xaw automatique parce que moom wane woon naa ko fi maa ngi koy wanewaat te gis naa ne mbaax gars yi bëgg nañ ko torop torop sax voilà parce que moom boo ci defee ndox rek mu commencé tàkk macha allah boo sottee ndox bi mu arrêté voilà

ndax gis nañ ne lépp lu ñu def neex na leen lu ñuy wax dingeen ko déglu di ngeen ko jox importance te loolu dinañu neex trop macha allah voilà yii ay xeeti pétales de génn la waaw gis nga ñu ñu ñu mel waaw moom xam naa dinañ ci ñëw lu gën a sori après koor gi parce que ñu ngi ci yor quantité bu baax ci boutique bi di ko jaay en ak kii yi ngay gis nii yëpp dañ koy jaayaat en aussi suñu mbokki jigéen ñu bëgg a dugg ci business yi ñu ñeme te ñu ñëw seet si kër jeeg ji amul benn problème parce que ku ñeme rek dañ laa déy waaw te feccu liir bu neexee rek dañ ne ndey ji jàpp ci mbagg yi comme dañ jàpp ci suñuy mbagg bañ taxaw bëgg nañ ku nekk ci suñu ron ñu jàpp ci say mbagg ba nga taxaw li mag ñun ñu ngi ñaanal yàlla ñëpp li ñuy def barkeel ñu ñemee parce que gis naa ne fi mu ne liggéey moo xew te jigéen ñi toogatuñ kon nag domaine bi suñ ku ci bëgg ku kum ci intéressé rek en quelque sorte mën nga ñëw ñu collaborer ci comme man ni ma collaborer woo ak ñeneen de passage voudrais remercier son partenaire il y a partout dans le monde aussi Machallah, du Sénégal di dans la sous-région comme ni ma faral di à l'extérieur aux États-Unis en Allemagne Suisse Angleterre euh, laa Danemark Belgique France fépp daal macha allah waaw ba ci sama mbokk yooyu nekk euh, Indonésie voilà Jakarta bàyyiwuma kenn voilà bàyyiwuma kenn maa ngi remercier ñëpp parce que xam naa ne lépp yàlla la comme ni ma koy waxee du ñun ndax ñun mënuñu dara voilà am na fii ay secret aldankid yi xam naa ne ñàkkul ne gars yu bari xam nañ ko parce que ñii door a accouché koy faral di jël jigéen ñi aussi am na période yoo xam ne koy faral di jël xëj na bu ñu soxlaa bu ñu ma dinaa ci gën a mën a dem ak ñoom mu nekk de produit naturels yoo xam ne suñu maam yi ñoo ko fi bàyyi woon et macha allah gis nañ ne dara yàquwu ci koy utiliser di nga gis résultat yi te dina bari loo xam ne dina la teggi kon nag nañ delluwaat ci li ñu moomal suñu bopp macha allah yooyu yëpp dinañ ci gën a ñëw ak yéen voilà. chili bi tamit xam naa ne du ñàkk gaa yaa ngi koy joxoñ ndax gis nañ ko xam nañ ko bi mooy lingette bi gaa yi bii rek lañ faraloon doon gis mooy mooy gel bi gel intime bi voilà bi mooy lingette bi moom la ñu couplé nii macha allah nga xam ne jeeg bu ko am du namm dara. ñi ko xam deug xam nañ ma te mën nañ ma cédé kon ñi ko xamagul nañ ko jéem découvrir ndax waajaa ngi ni machallah voilà di len remercier yéen waa Sénégal TV voilà di delluwaat di len remercier bu baax sama càmmiñ Moussa suñu DG Lamine Mbengue euh, toute l'équipe en quelque sorte ci ndaamal Kajoor ñu tëpp ci biir nag ci vigile bi ak sama sista yu baax yooyu nga xam ne gisuma leen tey xam naa ne wax ji moo moo bari ci ñoom métti comprendre naa leen sama puce maman les Adja voilà Nakala, la sama Awa toutes les filles maa di def un grand coucou di les remercier di les souhaiter un très bon ramadan di jéggalu nag sama mbokki clientes di jéggalu sama mbokki internautes di xam lu deung ci wax di man la lu ci djup yalla la parce que ñun mënuñu yalla rek mun di ko sant bu baax aussi di ñaan yalla mu wéral suñu cër wéral cër ñepp rafetal xalaat ci li ngeen di xaar ci ñun ngeen di ko gis ñu di rendez-vous très prochainement même chaîne même fréquence merci beaucoup à la prochaine